Malamine euh, Thiam maa ngi lay nuyu. waaw Moreau maa ngi lay fay. Malamine euh, Thiam nga ne coordonnateur bu collectif des victimes de la spoliation euh, foncière cité millionnaire ci Grand Yoff est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun expliquer ñu largement problème mu suuf boobu lan la. voilà donc ñun ay acquéreur lañu ñun ay victime lañu. ay victimes yu ñu escroqué ñoo ngi dëkkee cité millionnaire Grand Yoff mm-hmm. depuis quatre-vingt-dix la ñuy jënd parcelles yi auprès de Abdoulaye Ndoye devant notaire Hyacinthe Lat Senghor muy cabinet notarial bu mag a mag boo xam ne jamono yooyu ba ci jamono ñu nekk ni sax ñëpp ko xam ci ci turam ba ñu jëndee nag suuf yooyu noonu ci kanamu notaire voilà il était question ñu xaar Abdoulaye Ndoye moom miy jaaykat bi moom ñiy jaay ñu mu morcelé parce que lu tax ñuy xaar mu morcelé jox ñu ay titres individuels parce que c'était un titre global boo xam ne ñu dañ ko bokkoon ñun ñëpp ñu fa dëkk donc tout euh, euh, titre bi mu ngi comporté woon trente euh, cinq lo trente cinq lots trente cinq acquéreurs yoo xam ne ñoo fa nekkoon léegi ñoom ku ci nekk pour nga mënoon am sa titre foncier individuel il il fallait ñoom wala euh, soit état du Sénégal morcelé ba pare bu ko defee ñu mutuel ku nekk loowam ku nekk am mën a am titre individuel mais nag bañ toogee di xaar ci diggante bi à notre grande surprise euh, juste après décès Abdoulaye Ndoye la ñu yëg nii comme quoi que titre yi héritier yu Ndoye ñi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy euh, ñooy ay doomu Ousmane Ndoye ñoom ñoo mujj dem ci notaire bi récupérer titre yëpp dem ci banque yi di lebu xaalis vraiment muy benn situation bu déplorable boo xam ne décrié nañ ko un peu partout te lu ci gën a garaaw. Hmm? Hmm? allez-y allez-y monsieur Thiam. Hmm. situation boo xam ne dañ ko décrié déploré ko parce que ñun ba ñuy jënd suñu kër dañ ko jënd fu ñu ko nar a jëndee ñu jox ñu ay acte de vente yoo xam ne ñun ñëpp ko yor mënuñu toog nag bés ñu jékki-jékki rek dañuy indil ay kayit ne dañ ñuy génnee loolu vraiment doon na situation boo xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy nakar waaw yéen am ngeen ay këyit yu leer waaw wala déet euh, monsieur Thiam ak tamit terrain yi ñaata terrain la exactement. bien sur am na ñu ay kayit yu leer nañ am nañu ay acte de vente yoo xam ne ci notaire lañ ñu ko lañ ñu ko defarale nekkul ay kayit yoo xam ne dañ ko def une vente euh, sous seing privé mais c'est une vente légale boo xam ne dañoo toog notaire toog mu am témoin am lépp ñu fay sañu xaalis via Abdoulaye Ndoye jaay ñu fi mu nar a jaayee notaire délivré ñu kayit kayit yëpp ngi ci ñun léegi nag. Euh, victimes yi nous sommes au nombre de trente cinq lots trente cinq maisons la. ñenn ñi sax depuis deux mille deux mille vingt deux dix huit ñenn ñi commencé nañ leen génnee deux mille deux la ñu commencé génnee ñenn ñi la ñu commencé indil problème ñenn ñi ñoo xam ne comprendre ñu xamul sa lu xew. dangay toog rek ñu ñëw taf sa kër maison en vente xam nga jékki-jékki rek indil la kayit ordonnance d' expulsion balaa ngay comprendre fekk UC ñëw na force de l'ordre ñu ne dañ lay génnee. voilà donc noonu la fa demee. Euh, problème bi depuis euh, quand la exactement Malamine. donc problème bi depuis 2002. Mm -hmm. donc 98 d' abord la njëkk la njëkk la njëkk a dem mooy euh, les héritiers Ndoye euh, en l'occurrence Ousmane Ndoye mi nga xam ne moo nekkoon le le mandataire de la famille moom la ñuy yabaloon pour muy gérer bien wu famille ak yëfu famille bi mais Ousmane Ndoye moomu 98 la njëkk a dem ci bi. récupérer euh, li nga xam ne mooy ñoom liggéey nañ ko état du Sénégal liggéey na ko au niveau de l'impôt et domaine des impôts et domaines mooy euh, euh, morcellement boobu ñu def ba def ba attribuer ku nekk sa lot individuel ba jox la sa TF individuel ba nga yor sa TF ba mu récupérer nag titre global yooyu yëpp mu dem auprès des banques di ànd ak ay commerçant di leble xaalis di louer di di di dem di tayle kayitu nit ñi ba mu demee ba benn moment mënatul fay mais banque ci la jël kayit yooyu kayit yooyu mu fa tayle woon dem jaay lépp suñu kayit lañ jël dem jaay lépp au niveau de la barre des criers pour mën a def recouvrement am pour mun a def recouvrement am donc depuis 2002 la tàmbali la affaire yi tàmbali depuis 2002 ñu ngi ci di yëg di wàcc di xeex xam nga ci lañ nekk ba léegi ba fu ñu toll nii. est-ce que interpellé ngeen autorité yëpp yi ngeen war a interpellé ci dossier bi. si euh, ba ñu demee ba gis ni vraiment euh, problème bi gars yaa ngi attaqué ku ci nekk ñu ngi koy attaqué ci la ñu taxaw ñu formé wu en collectif en 2018. la première acte à, à, que nous avons fait le premier acte que nous avons fait la première chose à faire moo nekkoon ñu bind euh, le le le président de la république la présidence ñu bind leen bañ leen bindee maître Oumar Youm tontu na ba mu tontoyee nee nañu xamal nañu ci at ci euh, document bi bu ñu jox bu ñu bu ñu tontee nañu euh, yabal na le ministre de l'intérieur et le ministre de la justice pour ñu jéem a jox une suite légale à cette affaire là Entre-temps, le ministre de l'Intérieur a réagi par le biais du sous-préfet de la police de Grand Yoff ñoom ci lañ ñu woo ñu def une enquête exhaustive de la chose déglu nañu ñëpp nag mais ba ñu dégloo ñëpp ba ñu paree ñoom préfet sous-préfet ci la ñu woo le sous-préfet monsieur Mar à l'époque ba ñu woowee xamal ñu comme quoi que vraiment cette situation est, est déplorable vous êtes tous des victimes parce que tey ba ñu defee enquête bi gis nañ ni vraiment euh, ñu fauté mooy la famille Ndoye ñoom ñoo fauté parce que la famille Ndoye parce que la famille Ndoye boobu je rappelle ñoom jot nañ leen même euh, ñun ñu problème ba ñu commencé sonal à l'époque ñun dañoo defoon une plainte au niveau du parquet gars yi jotoon lañ leen jotoon lañ leen euh, jàpp am na ku ñu ci jotoon seen seen seen mandataire lañ ci jotoon jàpp. Mm-hmm. tëj nañ ko ci pour escroquerie. léegi nag commis sous-préfet loolu la ñu xamal nañu l'état du Sénégal mu ngi gars yi ñu ngi def une enquête donc ministère intérieur jël na dogal pour que la police et la gendarmerie ñu bañ a porté waat assistance à huissier ñu bañ a càppalante dimbaliti wala euh, ñëw euh, fekkee expulsion wala soit ñëw jéem a encadrer expulsion parce que lii nii euh, c'est en cours d'enquête et vraiment donc bëggoon nañu à l'issue de cette enquête à la fin de l'enquête ñu mën a exproprier ces lots-là jox ko aux ayants droit ñi nga xam ne sont les premiers acquéreurs te gis nañ ni ci enquête bi ñoom dañ leen tooñ. léegi yéen xeex bi Malamine Thiam dangeen ko fas yéene wéyal ba kañ ak naka la ngeen fas yéene def euh, ngir li ngeen moom ñu bàyyee leen ko di seeni kër. voilà xeex bi tàmbale nañ ko ñu ngi koy def pacifiquement ñoo ngi koy def ci jàmm yàquñu dóoruñu kenn parce que d'habitude huissier d'habitude bu ñëwee ci kër yi sax famille dëgg la gars yi euh, nelawatuñu xam nga sa kër ñenn ñi dañoo tukki woon ku ci mel ni man sam dafa nekk France lu yàgg ñibbisi gars fan mu décédé bàyyi fi ay jirim ñun ñëpp ay xale yu ndaw la ñu ay jirim lañu donc mu décédé gars yi dañuy di dañuy pis bu nekk dañ lay indil kayit topp la mais depuis 2018 la ñu gëjoon wax dëgg yàlla la ñu gëjoon indil kayit mais rien que au mois de décembre dernier la ñu commencé indil ay kayit comme quoi que dañoo war a génne mais xeex bu ñuy xeex mooy euh, dañoo teg. collectif boo xam ne ñu ngi ci ñu ngi concerté wu ñoo ngi def ay plan teg ay plan d'action ñoo ngi bind ay lettres di koy yëgal kilifa yi dernièrement ba ñu mujjee indi la benn ordonnance sous-préfet laa dem direct comme sous-préfet moo ñu xamaloon ni actuellement kenn du leen indilatil këyit mais dem nañ fa xamal ko le sous-préfet le sous-préfet nee nañu ñu dem gis commissaire dem nañu gis commissaire vraiment mu nekk nit ku ku ku ku ku ñu déggal nit ku vraiment ku ñu porter une oreille attentive mu nañu incha allah dina ko jox benn suite euh, vraiment légal te jot nañu tamit euh, bind une lettre au ministère de au ministre de l' parce que le ministre de l' intérieur ñoom ñoo génne woon un document vraiment donc où il y a il y a écrit mentionné euh, pour que police ak gendarmerie vraiment bañ bañ ci topp huissier pour ñu ñëw di génnee nit foofu ci zone boobu ndax ce problème la est en cours d'enquête. Malamine léegi euh, euh, d'une manière générale euh, pour yow lan la état bi war a def wala autorité yi pour xeex wàllum spoliation foncière litige foncier parce que bëri na liñ koy dégg ci réew mi. voilà même boo xoolee tey ci document wu document wu cartographie bi mooy. Euh, document wu litige foncier wu Sénégal yi bëri na bëri boo xam ne vraiment maaré dafa dafa doy dafa doy waar mm-hmm. donc d'habitude da ngay dem tribunal tamit ay jafe-jafe problème yu mel noonu da ko fay fekk ci lu dul ceex état du Sénégal vraiment man dama bëggoon vraiment ñuy ñuy ñuy joxe les titres fonciers à temps nit ku jënd këram nañ ko yombalal démarche yi jox ko mu yor titre foncier am bi nga xam ne dañ koy archiver au niveau du livre foncier pour que yenn yi mën fi jeex ndax dafa dafa dafa métti neexul ci xol gis nañu fi ñoo xam ne dañuy am dëgg sax mais ci kanamu yoon dañuy ñàq lu tax ñuy ñàq comme lu ñu dal nii rek ñun nga jënd sa kër téye sa sa acte de vente gars ne di xaar pour ñu morcelé ba ñu morcelé ba pare yëgoo ay héritier famille bi nga xam ne ñoo leen jaay dem jëlaat ko dem di lebu xaalis banque bañ a fay banque banque jël ko dem au niveau de du tribunal def à la aux enchères c'est-à-dire vente décriée recouvrer seen xaalis voilà donc vraiment loolu dafa yomb trop léegi moo am beneen acquéreur boo xam ne day dem rek saisir huissier parce que moom moo yor titre foncier bu bees bi xam nga dem ñëw ñu génnee la directement nga ñàq noonu vraiment loolu état bi dañ ci nar a dañ ci dañ nar a seet saytu bu baax mën ci baaxeel mën a dimbali ñi nga xam ne tamit seen loxo jotul gannaaw xam nga dañuy taaba taaba rek ñu ñun ci collectif bi ñu ci bëri vraiment euh, seen tey bu ñu leen mhm. yàlla xam na ne amatuñu ci lu ñuy nekk. te dina mhm. dinañu loué wala soit nekk dans la rue. parce que mhm. doon situation boo xam ne buñ ci prene euh, si on n'y prend pas garde vraiment dafa dafa nara a doy waar. te ay bakkan sax mun na ci rot ndax fii tamit ñi ñi ñi ñi ba du ñu bàyyeeku gars yi déjà d'ailleurs récemment def nañu benn point de presse. waaw artu nañu état bi. vraiment vraiment pour mu mën ci mën ci mu mën ci mën ci mën ci jël ay matukaay. ndax du ñu nangu kenn du fi nangu muy muy collectif bi yëpp muy Grand Yoff bi yëpp kenn du fi nangu ñuy laal benn famille naan dañ koy génne ci li nga xam ne teguñu ko ci yoon teguñu ko ci dëgg vraiment loolu lay ñaan état du Sénégal lii pour mu jeex fii ñoom ñoo ko mën a jeexal lii pour mu jeex fii ñoom ñoo mën a di établir à temps des titres fonciers individuels des titres fonciers euh, euh, yu normal yoo xam ne nit ki da koy yor xam nga bañati au moins jànkonteel ak yu mel ni parce que boo yoree sa titre foncier rek yenn yi dootu la dalati mais ñenn ñi nga xam ne dañuy liggéey aux impôts et domaines. Hmm. parfois dañuy xam jafe-jafewu loo bi. wala jafe-jafewu euh, nu mu tee sax occupant bi. exactement xam nañ ne kii il n'a pas encore régularisé. Hmm. man donc mun naa ci jaar fi mun naa. jaar fi jaar fi doo xam sax voilà. Hmm. doo xam sax affaire yi nu mu def ba aboutir ci loxo loxo nit ki. alors que ay nit ñoo koy seet ñooy nekk fële di xam exactement loo bi c'est pas encore régularisé loo bi c'est pas encore régularisé mais yooyu pour mu jeex état du Sénégal su nar a jël ay matukaay tey dañoo toll ci innovation technologique tey dañu nar a digitaliser lépp lépp jaar yoon affaire yi dootul amati benn lam-laame képp ku jënd sa kër jox say say kayit à temps nga yor say kayit xam nga nga mën a dëkk ci jàmm bu ko defee lii yëpp wàññeeku. Mhm. te vraiment euh, connaissant le président Macky Sall xam naa ni yooyu noonu. ça lui tient à cœur parce que newoon na pour ñu faire face à à ces litiges là pour loolu jeex mais jusque là état décision yu muy jël bon si ça ne se ça ne s'applique pas ba amul benn sens foog ñu koy appliquer. voilà Malamine Thiam Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. maa leen di jaajëfal maa lay jaajëfal Rewmi FM euh, Mawla madame Mawla maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ma leen di remercier ci seen taxawaay bi ci surtout euh, invitation bi ngeen euh, defaral. vraiment pour que ma mën a exprimer wu euh, par rapport euh, au problème portant sur euh, notre litige foncier vraiment ma leen di jaajëfal leen di remercier xam ne lii seen xeex la lii suñu xeex la lii xeexu bépp doomu aadama la bi nga xam ne au moins tey bugul dafa bañ injustice ndax tey rafetul nga nit dëkk wala yor dëkkuwaayam yor këram ñu ñëw rek bëgg ci génne noonu ci loo xam ne au moins tegul fenn vraiment euh, doon na une chose bi nga xam ne loo xam ne au moins ñëpp lay interpellé interpellé na euh, euh, les autorités étatiques interpellé na les journalistes interpellé na tey les organes de presse interpellé na ñëpp vraiment tey man fépp fu nekk fu ma mënta toog du ma cessé di leen di jaajëfal ndax yéenay vulgariser suñuy message yéenay vulgariser li nga xam ne au moins tey on le ça nous à cœur pour que vraiment affaire yi mën a saafarawu ma leen di remercier bu baax euh, madame Moreau di remercier waa Rewmi FM ci invitation bi. voilà Malamine euh, Thiam may fàttali yow yaay coordonnateur bu collectif des victimes de la spoliation foncière ca cité millionnaire nekk foofu ca Grand Yoff.